di leen gërëm ci teewaay bi tey danoo ñëw fii woo woon leen ci terrain bi nga xamante ni suñu bokk moomeel moo ko moom muy commune Mermoz Sacré-Cœur terrain bii nga xam ni SICAP da koo jëloon atribuer ko commune ni ko fii kat mën nga fa def foo xamante ni nit ñi danañ fa tàggate seen yaram ni ñi danañ fa mën di dem di waxtaan ni ñi danañ xale yi danañ fa mën a fooye ndax gis nañ léegi li jamono yi toll xale yi amatuñu fu ñu fooye xale yi amatuñu fu ñu nekk bi ko Sicap joxee commune bi ni ko terrain bi loolu mooy objet bi tey danoo gis ni détournement d' objectif bi c' est à n'en plus finir maanaam détournement d' objectif boo xam ne du jeex jëloon nañ ko ci 2016 2017 ñu defoon ci délibération conseil municipal ni dafa am benn waay bu ñu ko joxoon bu yor entreprise bu tudd 375 bañ ko ko joxee ñun ak sunu wayjur yi nga xamante ne ñooy nekk ci association phase 4 bii di défendre terrain bi ñu ni lii kat waru fee mën a am ndax terrain bi RDG la waru am centre commercial ñu ànd ak ñi nga xamante ne ñoo nekk ci réew mi di wuruj suuf di ko lijjanti ba yokku ci kani war nañ cee def centre commercial tey jii biñ koy def centre commercial ñu ne nag dana nekk xanaa à titre précaire et révocable ña nekk ca bokk moomeel ba muy conseil municipal bi Habib Mboub mii di sama xarit bokk ci ñoom ñu ko ñoom ñu valider ko ni conseil municipal ba la nekkoon en 2014 joxe woon mën naa nekk centre commercial ñu ni comme titre précaire et révocable la nañ ñu am maire boo xamante ni day wër ci réew mi fu ne di yooxu lu ne mu ni moo baax ku ne mu ni moo bon lu ne mu ni moo ko mën man naara ngi naar yaa ngi suñu suuf sii ci commune bi ñoo ngi koy tong-tong duñu nangu ñu koy tong-tong douze mille soixante-sept mètres carrés ci kaw tali bi fii ci diggu Ndakaaru du lu ñuy tong-tong du lu ñuy fooyee ñu jox ko Alassane Ndour ancien international lañ ciy wax bu dee moom la ñu ngi koy woo mu ñëw leeral ñu wala mu ñëw waxtaan ak ñun ndax droit acte trois de la de la décentralisation moo nu jox ñun ñi nga xamante ni fi leen dëkk ñu ñu am droit interpeller maire ak koo xamante ni war na fay mën a ne bañ ko ko joxee daf ni dafay def aire de waaye aire de ay la yoon day fa yekku bu fa yekku amee dina am ku am dina ko am ku amul doom yeeg xarit di nekk ci commune yi du fooye ci àll bi bu loolu weesoo am na ku ñuy wax beleel boutique ñu ni ñoom lañ jox ci gannaaw lañ ko jox kenn xamul lu mu ciy def xanaa bu ñu nee titre précaire et révocable lii ngeen di gis mu am pylône yi ci ginnaaw xanaa du précaire de du révocable kenn xamul immeuble lañ fiy def kenn xamul ban délibération la délibération bi li gën a grave mooy proposition de délibération la maire day proposé conseil municipal bi délibéré kenn gisul fenn fuñ ko délibéré ñu ni kenn du wax déedéet duñ noppi dañ koy wax kenn délibéré ko yéen a ngi gis nii mi ngi dem ñu ngi tong tong suñu suuf te duñ ko nangu Auchan man joxoon ñu yokkal ko ci gannaaw 500 mètres carrés bu mu def magasin waa ñun ñu fi dëkk dañ naan tekk rek taxaw di seetaan mani tong-tong bi duñ ko nangu. d'accord euh, maire bi ndax tey jii lii nii xamal ngeen ko ko euh, koo xam ni du waxtaan du déglu bu ko neexee rek bu tàngee rek mu wax bu ko neexee boo ko bindee voie officielle maire ba du répondre boo envoyé message duñu répondre nga woote duñu répondre xam ngeen bokk moomeel ñun ñëpp a dëkk ñun ñëpp a xamante xam war naa mën a rafet waaye dafa rafetul nag dëkkuwaay bi fii rafetul boo leen waxee ñu ni occupation anarchique bi danañ ñëw defar ko proposer leen nous avons des plan yoo xamante ni proposer nañ ko commune bi ban leen ko proposer ñun population la xanaa dañuy teg rek waaye amuñu droit def mairie bi ba acte trois bi ñëwee ba léegi yor na moyen yu mu aménager terrain bi te mairie bi defatu ko aménager tul dara nag bu ñëwee dëgër piir ñi fi ne saa yu ñëwee dëgër piir rek mooy am na ñu fi bëgg a indi interpellé nañ ko fi ba tàyyi buñ ko defee ci internet bi mu partagé ko dandi danañ ko nettoyé mais saa yu nettoyé rek mooy am na ñu ko bëgg jox loolu nag lañ sonn ni dafa doy koo xamante ni du dégg xanaa boo yóoxoo dana la dégg. d'accord mais après point de presse bi lan ngeen na ma def. après après point de presse bi ñëpp seen dënn dafa tàng ñëpp ñëpp sonn danañ génn fii def fi grand rassemblement le combat de commencer l'objectif est toujours devant sunu objectif mooy sunu détournement bi ñu bëgg a def si terrain yi détournement d'objectif bi du fi amee tong-tong bi du fi amee. d'accord ci wàllum justice euh, da ngeen a porté plainte. porté nañ plainte association Fass 4 bi sunu parents yi jiite madame Awa di présidente bi ba léegi mi ngi justice des renvois à n'en plus finir tey woo nañu ministre de l'intérieur. ni ko mu interpellé sous préfet bi laaj ko ba xam moo appro moo approuvé autorisation bi ndax sous préfet day teg day approuvé autorisation de construire kenn xamul luñ ciy def terrain bi ñu woo ministre de collectivités locales comme maire yi pouvoir délégué la ñu am ñoom ñi délégué ñoom état central ñi délégué maire bi ñu woo ko ni ko na interpellé maire bi ñuy woo le directeur général de la SICAP fii bokk moomeel la Sacré-Cœur la tudd SICAP SICAP jël terrain bi boo daggee ñëpp xam nañ kayit suuf nu muy demee Sénégal boo daggee ay kër da naan fii école nga jox kii de droit nga ne fii centre de santé nga jox kii de droit nga ne fii sport nga jox mairie mu war a aménager ndax SICAP du aménager kenn léegi nag SICAP détournement détournement d' objectif boobu lañ ni ko na woo maire bi fi ne waaw mu woo conseil municipal mu laaj leen ba xam ñoom ñoo délibéré ci loolu damay bàyyi sama xarit bi Habib Mboup nga xam ne conseil municipal la danañ leen jox délibéré yi nga xamante ni moom lañ yor benn délibéré la am 2014 la woon it ci des yëpp ay projet de délibération la te ci biir délibération bi ñu ngi ci mentionné que ni délibération yi dañ ko war a publier ko def ko partout de droit lii kenn mës koo gis dama ni tong-tong bi duñ ko nangu. tey defe naa ni sama naataange kii di Samb wax na lépp tey conseil municipal bi ñu ngi may dégg je pense que tey délibération bi ñu wax ni que moom la ñu joxe fii pour ñu mën a def aménagé lii nii defe conseil municipal bi amul kenn ku ko voté projet yaa ngi nii délibération yaa ngi nii ñu proposé woon man damay wax ni Bart moom moo tax doon taxaw di xeex mbirum foncier boo leen xoolee problème littoral bi nax saay na kenn waxatu ci problème mu terrain Dakar dem dikk bi nax saay na kenn waxutu ci problème mu panneau yi nax saay na kenn waxatu ci. tey nag comme tey yàlla da ko tey mu bëgg ville de Dakar te bu mu bëggee ville de Dakar nag bu dee maanaam budget lay wut bu mu tong-tongee suñu terrain bi ngir mën am budget de campagne Pape Samba wax na ko sànq suñu wax du bëri tey nag nous allons appliquer et que la guerre vient tout juste de commencer Bart nous serons nous face à lui war nañ ko foncier bi appartient wul ak Barthélémy Diaz foncier bi appartient wul ak ma samb wala ma Dem ñun commune Mermoz Sacré-Cœur le titre foncier bi tudd ñun ñoo ko moom lii nag kenn du ko paacoo di lancer o appel à la jeunesse di leen wax ni que lii suñu bijou la tey espace bi waroon nañ ko aménager terrain multifonctionnel te defe naa ni loolu la ñu proposé woon terrain bi waroon nañ ko aménager tey espace de détente tey yàlla dafa def ni deux voies Sacré-Cœur yi amatul fan la suñu waajur yi di féexloo fan la jeunes yi di taxawloo di di daje maa ngi di poser question boobu noonu mais tey gis ngeen boo leen gisee poteau yi ngeen xam ne ni lii lu ñuy gas la machine baa ngi gas kon lii luy jëm ca kaw la tey ñu ñu nax nag dañu ñu jéem a wax ni que 2014 bu leen fàttali ko woy élection locale 2014 c' était en juin délibération nag bu muy wane ni boobu c' était en janvier 2014 boobu fekk conseil municipal bii nii euh, présenté wuñu guñu woon nekkuñu woon en place kon tey bu ñuy war di conseil municipal bi ñoo voté délibération yi dañuy wax naka du sudul noonu am na yeneen ñaari promoteur ñoo xam ne maanaam tey ku mel ni SMK kooku xam na boppam ñu ngi koy wax ni nag mu teggi tànk te xam ne ni mbirum suuf bu mu tax muy ñëw di def naka sudul noonu am na beneen tamit boo xam ne matricule la ci délibération yi ñu proposé ñu ko conseil municipal nous avons refusé parce que tey lu ñu proposé ak lu ñu gis ni bokkul di leen wax ni nag yéen la presse boo leen demee ngeen laaj ko moom si jëm boppam ndax li mu waxoon askan bi bañ koy fal 2009 ndax li mu diggoon waa Sacré Cœur ci wàllum terrain bi est-ce que jëfe na ko waa wala déet question boobu laa amoon lu ma koy posé.